Ali Ndiaye président régional filière oignon chargé des communications et postes au niveau national vice-président de l'INACOA Diapo président regroupement des commerçants marchands. waaw dañu am euh, yëg-yëg rek ci dëkk bi ni mu mel ñu jàpp ne am nañ benn participation bu ñu war a def tuuti rek ci askan wi donte lu ndaw la waaye ñu jéem ko comme war a jéem a tàmm sax social tuuti ndax àdduna moom dimbalante rek moo fi am soo amee dërëm nga bokk ak ñi nga war a bokkal soo amee ñaar dërëm tam nga bokk wala nga séddee. moo tax nag bi ñu gisee ni àgg nañ ci weeru koor te jamono yi ci ginnaaw ñu gis ni kat Sénégal dund gi métti na lool euh, li ñuy ñu koom bi ni ñu war a dundee dafa seer jàpp ne kon bu ñu yëkkatee dara ñun ci li ñu am as néew ñu participer ci seen côté dana am solo ci ci loolu te ñu def ko te yàlla rek tax defuñu ko nag ngir dañu bëgg tur wala ñu def ko ngir dañuy politique non non dañ ko def rek en tant que ñu nekk responsable fii ñu nekk ci marché bi yàlla dénk nu tuuti loo xam mën nañ cee suturlu ñu nañ ko bokk ak askan wi Thiès. bi waaw parce que waxoon nañ séddale 300 sacs de oignon loolu laa xaw ma nag booy defe naa ña ngi ci bi man nu ma fa sax teew ndax xam nga àdduna moom daanaka mooy loolu moo tax ñoom ñu ngi ciy jëm daal te fas nañ leen di ko continuer incha allah rabbi. ndax am na cible. waaw non dina dina ko am bu baax a baax a baax. dina ñoo xam ne ñii ñoom ngeen di wut a jot. waaw non non ñu amuñu loolu. amuñu loolu parce que xam bu dee da ngay joxe booy tànn rek bu yàggee doo joxe ndax bu fekkente ni man ngay man ngay joxe gis koo xam ne nit ki comme ni ñu koy waxee mën na nekk koo xam sa ni nekkul sa sa sa am di jàmm comme ni ñu ko tuddee baatu mën a nekk nga jàpp ne sa noonu la su boobaa da nga koy jéggi mais bi ñuy joxe ko moo tax bëgguñu fa sax toog pour xam kii bëgg nañu wala kii bëgguñu na joxe rek généraliser képp ku ñëw yàlla wërsëgale sa sa sa wàll ma nga fa amul xàmmee ku ne pomme de terre moo a commencé yéeg tuuti ndax ak saako bi actuellement ma ngi jar 8000 francs su dee soble ñu koy jaayee parce que fan yi dans deux jours ma ngi doon jar à 4500 4750 mais actuellement nii yëkk yëkkati nañ ko ba si ba 5000 li ko waral nag mooy waa àll bi parce que ñu ci bëri tey mënuñu mënuñu sol soble comme li nga ko bëggee maanaam conditionnement bi duñ ko mën a def koo wax mu ne damay corté ji borom oto yi boo jëlee fu sori a coré àll yi ñu dem soo demee itam dañu fiy teg yenn conditions yoo xam se ni am maanaam nga yegg yóbbu sa oto pour ñu sol soble bi ay 1400 daanañ daanañ conditionné sac bi cent franc mais léegi dañ naan noonu sac bi deux cent la ba ñun yi ko daan dañuy conditionné léegi sac bi cinquante franc wala cent franc lañ ko ajee transport bi dafa yokk moo tax loolu nag ñu dem ba soble bi egg cinq mille franc fii ak Korité gi jeex du passé cinq mille ci kartanu seen war ko mën a fournir sama biir place may place bi ak place bële te yàlla def nañ ñu fexe ba wut stock boobu pour teg ko nga xam seen maanaam prix yi du egg ci ay neuf mille ak ay huit mille cinq cent dinañ fexe ba def lu ñu mën suñ kéemtalaay kattan ba si 8000 yooyu mu mën ci am en gros 8250 par détail. waaw am nañ ay mesures yu ñu ci jël parce que man bi daaw boo xoolee li ma wàcce woon ci soble parce que ëppoon na 10 000 sacs mais dama xaw a limité wu pour muy ñëw ci biir dëkk bi dama bàyyi yenn ci stock yi xam ne ma ko bàyyi ci magasin stockage yi nekk ci zone production yi. parce que actuellement boo xoolee ci place yi ni tey bu ci nekk dañuy fexe indi fa lu mat 3000 et lu mu gàtt ak lu mu lu mu des des des suñ Korité pare li fiy des du nekk loo seen dina la mën a sonal mën nga koy jaay détail bu après Korité bi dans une semaine après parce que boo xoolee dans une semaine après doo gis ko fi ñëw di jënd soble yenn ñu ngi livré a distribuer oignon bi ñu yor suñu loxo. a dal loolu moom mën a dalal seen xel ndax loo daan jëndee junni incha allah rabi bu dee soble la dinañ fexe ba mu wàññi junni bi mu nekk 4000 wala 3500 loolu nag suñu waru gar la warteef la ci ñun ñu di ko jéem ndax comme bu fekkee ne ñun ñoo jiite région bi ci filière oignon bi tey yoon la ñun bépp kemtalaay kartan gu ñu man ñu jéem koo def te yàlla rek tax pour fexe ba dugal ci parce que liggéey bu ci nekk ci nga mën a dawal yërmande nit ki la muy liggéey rek ci la mën a baax mais lépp loo liggéey mënoo ci am accès ba ci ci baax kon nag yàlla dénk nañu ne ci ñoo ngi fa góorgóorlu ba fexe ba loolu mën cee am tawféex